21h. asalaamaaleykum mbokki xibaaru guddi si li ci nar a gën a fës. Birama Ndiaye. bokk na ci li ci nar a gën a fës dawalkat woto yu nekk ca fukki garage ci commune bu kaw Kaolack mer ba fépp la ñuy def la ñuy mettit lu bokk na ci ñàkkum kaaraange càcc gi ak it agression yi ñu nemmeeku foofee ca fi nga xamante ne nag moom mooy ci seen bërëb yooyu yëpp ba tax rek ni ki tey ji ñu daal di fësal seen ñàkk àndate ci loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca booba jamono cees ñi nga xamante ne dañuy jaay ay boutique détail foofee ni ki ci suba lañ leen tegub loxo lu ëpp ca ñoom luñ leen di toppee nag bokk na ci ñàkk fay ak it organisation yi nga xamante ne dañ koy tere ci rassemblement yooyu ba tax rek ni ki tey jii nag daal di nañ xàppati grève illimité ngir rek daal di fexe nguurub Sénégal daal di tendefal ci xeex boobee wala boog dogal yooyu nga xamante ne daal di na koo jël ginnaaw coow li am foofee ca Tiwaawoon itam ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy teefank yi ak jaaykat yi ngir rek ñu daal di mën a dem ci daral bu bees ba ngir joxoñ baaraamu tuuma mairie ba loolee nag maire ba ci boppam daal dina ci yëkkati ay kàddu ni ki tey ji gindi askan wi ana lan moo waral loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat lii di contradictoire dinañ ko amal itam ci njeexitalu xibaar yi lay doon. ci 88 628 98 98 moo féete ci xarala Sud Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mbooleem suñu bànqaas ñu lëkkaloo. aljuma ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru sulet atum ñaari junni ak ñaar fukki xibaar yi ñu doore ko rek ci tiis bi di génn àdduna ki fi nekkoon jëwriñu kaaraange biir réew mi di Cheikh bu Fall niki ëllëg nag la ñuy xaarandi li nga xamante ne moom mooy néewam bàyyi ko foofee ca France moom nag moo ngi génnoon àdduna niki ñaar fukki fan ak benn ci weer wi ñu nekk lii di levée du corps bi nag ñoo ngi ko fas yéene amal dibéer gile fukki fan euh, dibéer gile bu fukki waxtu jotee foofee ca hôpital principal bu Ndakaaru biñ ca noppee nag dinañ ko ñaanal foofee ca jàkka bu nekk ca Point E buñ ca noppee ñu jébal ko boromam ca jana say jullit yu nekk ca yoofu moom nag Cheikh bu Fall nekkoon na fi ministre de l'intérieur ci atum 2004 ci gouvernement Ablaye Wade nekkoon fi itam maire bu commune bu Point e. moo ngi amoon lu toll ci juróom euh, ñeent fukk juróom benn fukki at ak juróom-ñeent ngeen fi wéy di fi taataan xibaar yi dawalkatu taxi yu toll ci fukki garage yu commune ca Kaolack mer ba fipp la ñu def lu ñuy métti lu bokk na ci ñàkkum kaaraange càcc ak agression yi nga xamante ne ñoo ngi leen koy def jafe-jafe ci seen wàllub stationnement loole yëpp tax na rek syndicat bi nga xamante ne moom moo leen ëmb dal di tax lu toll ci ñetti téeméeru chauffeuru taxi ñoom ñoo fa nekk la ñuy métti lu bokk na ci nag condition yu métti ya nga xamante ne ñoo ngi ko fay dundee ba tax ñu daal di yëkkati yuuxu jëmale ko ci kàddu kilifa yi kenn fa ñoom di Serigne Kunta moo nekk secrétaire national ñu teewlu koog Mamadou Camara. fukki gaaraas ñoo nekk fii ci place bi. ñu di ko ci benn mbedd mënatuñ taxaw ci benn mbedd parce que foo taxaw ñu dàq la foo taxaw ñu lal bu fi taxaw te gaaraas yi fi ñu leen regroupé nii du place bu ñu mën liggéey parce que ndox la moo xam ne bu tawee amul benn taxe boo xam ne day yabatee ci Kaolack parce que boo taxawee ci place boo di jël oto pour dem bi ci tegu it mooy paas bi seer na seer goo xam ne amutul benn client boo xam ne kalota nga jël taxi parce que lan moo ko waral mooy koo xam ne bu amee téeméer këram mën a def sombi di fay paas aller tour téeméer ci taxi bala moo caag mu toog këram du ñëw marché parce que kon loolu moo tax chauffeur si mënatuñ dund ñi ngi lancé appel nag ministre de ak ministre transport ñoom ñi nga xam ne ñooy suñ ministre tutelle te ñëw lan moo ko waral nekk na ci lieu boo xam ne kenn mënatu fi jaar kenn mënatu fi toog parce que bu jëm see ay bandee jaxasoog yow di xeex ak yow di jëy say bagage kon nag ñu muy Macky Sall Sénégal yëpp ñu bokk fal ko kon nag li nga xam ne mooy ay ñu ngi leen wax nañ daje ci lu gën a gaaw suñ ñu jël ñu ko oto bu doon yëpp juróom ñetti place yoo xam ne soo ko sobee su sept cent cinquante ngay yàpp jënd six cent soixante pour verser leen corona bi nag rëyut Sénégal kenn kur chauffeur rek la rey parce que chauffeur la toroxal weer ko yóbbu ci condition boo xam ne mënatul dox nañu delloo suñ place ñi ngi fay assurance di yor ñetti nit te ñi ngi doon fay juróom-benn nit di fay kon ñetti nit ñi ñi lañuy ñetti ñun ñu perte ko kon assurance ngi gagné suñ kaw état gagné suñ kaw ñun dañoo perte ñi ngi wax le maire de Kaolack Mariama Sarr li xam la ñuy leen ba ñu am lieu loole di kàddu euh, chauffeur yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci fukki garage yu nekk foofee ca commune bu Kaolack ci lim toll ci ñetti téeméer fa ñoom ya nga xamante ne nag jafe-jafe yi ñu nekkee ak seen wàllub liggéey moom moo leen métti ñoo ci doon àddu ni ki sànq noonee foofee ca Thiès la ñu jëm jaaykatu boutique yo fa ñoom itam ñuy jaay ci détail ni ki tey ji lañ ci tëgub loxo lu ëpp ca ñoom bokk na ci euh, ñàkkum payo ñàkkum fay li la di patante ak it ñu daal di amal ay rassemblement yi nga xamante ne nag ci mbedd bi loolee dañ koy tere ba tax rek ñoom ci seen wàllu bopp daal dinañ xàppati gerew illimité maanaam gerew bu amul app bu ko defee nguurub Sénégal daal di tendefal ci dogal yu mu jël Thiès Babacar Ndaw mbootaay bi mu jaaykatu boutique yi nekk si biir commune bu cees mer ba fut tax nag tey ñu xëy ñu si ëpp tëj seen boutique yi ne ab grève la ñu amal nee nañu daal ñoom mënuñu ñu leen di fayloo ay patente yoo xamante ne ñu ngi jóge si mbas boo xam ne liggéeyuñ ko ba tax na kenn si seen njiit yi Alaaji Jabel Jeng promenade des Thiessois di wax ak journaliste yi fa la leen police sa fekk jàpp leen. parce que dañoo na ci état de droit man du daw man kilifa laa du daw. nañu xool li war a def li ko teg. ñoom yemuñu si nee nañu tey jii patente yooyu mënuñu ko fay rax si dolli dafa cher dina am yu dem ba juróom-ñaari junni yu leen bëgg fayloo ñenn si seen mbokk yi sax tëj nañ seen boutique yi loolu na tax ñuy àttu kilifa yi si jamono joo xamante ne nee na ñu ngi waajal tabaski bi. waa léegi bu fekkente ni ñoom ñëw nañu ñu ni dañuy fayu ko boutique yi patente waaye ñun ak li ma la wax lépp li jaar ci mbas meek jafe-jafe yi ñu nekk ak waa léegi mënu leen ñu may une semaine avant tabaski tey mbote boo laal ñu ni cent cinquante mille cent vingt cinq mille boutique yi amuñu dara sonn laajuñu aide laajuñu ndimbal nga dikk ni da nga leen ni fitnaal tey te ñun ñuy ay jeunes li nit ñi man ñu man ko waaye ñun duñu def loolu lépp lu ñuy def rek dañ koy def ci trans. Euh, di fàttali nag seen euh, grève boobu ñu tàmbali ñu si bare euh, topp nañ ko rawatina commune bu Thiès Nord tey jii looloo tax sax menace boobu way takk der yi jël ko sérieux fépp si biir dëkk bi police mi ngi wër ngir daal saytu kaaraange yi bu ñu demee ko ne fii nga xamante ni moom mooy Thiès si jamono ji am na sax beneen ñu doon waaj a yëngu ne dañuy amal toggaayub ñaxtu ci benn këru téléphone ginnaaw bi ñu yokkee leen seen ay tarif yi bu premier arrondissement moo leen tegandi loxo laata ñuy xool fa ñu mujjee si jamono jooju ay kilifa nag ñu ngi ci tàmbali di dox jàmm. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw dem ba ca Tivaouane foofee ginnaaw yenn teefanke yi ak jaaykat yi daal di bañ ne du ñu dem ci daral bu bees ba niki démb lañu génnoon di ko méttitlu mairie ba nag daal di na ci génn indi ay gind ci fànn boobule Mamadou Diagne si Meg moo nekk maire bu Tivaouane ñu teewlu ko ak Babacar Sow. ñu jàpp ni ren Tivaouane benn point de vente la ñuy am. muy foirail bu bees bi. nga xam ne tabax nañ ko ci seize hectares mu am commodité yi mu war a am yépp ci wàllu ndox am na eau courante mais yemuñu foofu defaat nañ fa benn foirail village mu am ndox am courant am sécurité parce que am na benn poste de police mais également vétérinaire bi am na fa benn post de vétérinaire boo xamante ne nii guddi ak bëccëg jur bu feebar dinañ la mën a toppatoo parce que dañ ko fa utal sax logement foiraay bi pare na depuis plus de deux ans waaye événement bu jot rek notamment gàmmu bi mujj bu ñu waxee nii nañ fa toxu dañuy ñaan ni ñu nañ leen may événement bi passé parce que fi ñu tàmmoon di jaayee foofu la leen nit ñi xamee def nañ ko ñaar ba ñett yoon ren yi mooy nag euh, loo xamante ni euh, suñ ko rombee la amoon rek mooy amaat kon nag du ñu jël ay centaine de def ko ci benn bërëb pour mettre leen à l'aise avec toutes les commodités ba pare nag bàyyi ko noonu kenn du fa dem rawatina fi nga xam ne fa lañ daan def daral ci biir Tivaouane dañ daan jot yu yi waaye nag boobu amuñu woon pexe mais biñ demee ba am pexe nag ni am nañ fu ñu leen yóbbu dañu toog waxtaan ak ñoom du sax lu ñu leen imposer ni leen ren dañu bëgg am benn point point de vente muy foiraay bu bees bi bi ñu waxtaanee ak président MDE vice président MDE le secrétaire général ak président daral bi ñoom ñu ni ànd nañ ci à cent pour cent waaye benn condition rek mooy tax ñu nangu mooy que ni dañ koy généraliser maanaam du ñu defal ñi bàyyi ñi ndaxte ñoom ay julo lañ di jëlee ay xar yu baree bari di ko indi mais am na ñoo xamante nii dañuy am seen juróomi xar takk ko seen buntu kër ñun bi ñu jugé ni loolu sax peut-être mën nañ ko tolérer dañuy wax ni fa même benn luuma mercredi xëy na am nañu ci àndul mais majorité bi ànd nañ ci mesure bi parce que luuma bi lancé nañ ko am nañu ñu wax ni lañ fa jot a jaay ci bés boobu ñoom def tabaski opération kon ñu xam ne rek li ñu tax a jóg di yàqal leen mais li ñu tax a jóg may defaral leen pareen ji du ñu fay benn taxe mais même ndox mi nga xam ne mënoon nañ leen ko jaay si tabaski bi duñ leen ko jaay dañ leen koy may kon li ñu leen di wax rek mooy ñu dem dajaloo foofu nit ku nekk ngeen fi woy di fi taataan xibaar yi ginnaaw bu fekkee simili ak ñaar tegoo ci waxtu ca Nger Nger ca Kébémer ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci Mm, lii di centre euh, data centre bu jam Diamniadio di infrastructure ba nga xamante ne nag dafa jóg ngi rek daal di saytu lépp lu jëm ci wàllub informatique ci mbim réew fii ak ñaari weer dinañ daloo bërëb boobee ki ko ne di njiital euh, lii di adiya di Cheikh baaxum jàpp na ne nag loole day tax rek suñu réew daal di am ab mun a demal seen euh, demal boppam ci wàllub numérique wante fexe daal di héberger lépp la nga xamante ne moom mooy donné ci wàllu administration bi ubbeeku itam ci secteur bi moom Cheikh Bakhoum ñu teewlu ko ak Denisia Samb. tey dañu ñëw fii ci Diamniadio. de l'état bu ñu lay fii le président Macky Sall euh, gannaaw bu nu ko falee mbëbëtam moo nekkoon euh, rendre ce pays souverain en matière de numérique maanaam nu ñuy def ba déployer ay infrastructure yi tax tey et dépend ci boppam kese pour mën a sénégalais yi donc loolu euh, pour ñu am ko nag faaw ñu am ay infrastructure yu baax pour ñu mën dépendre ci ay yeneen dëkk donc tax la nekk donc data center bii nag luy mbëbëtam moom mooy ñu mën a héberger données yi nga xamante ne dana ko gérer pour état du Sénégal pour ministère du Sénégal yëpp donc képp nga xamante ne administration nga nga soxla héberger une application nga soxla héberger ay infrastructure mun nga ko def ci data center bi loolu dina tax administration yooyu képp ku ne ci ñoom mën na concentrer ci liggéey moom la ko euh, président Macky Sall dënk te ci wàllu informatique nga xamante ne tey agence de informatique de l'État la ñu ko jagleel ñoom dinañ mën a def liggéey bi pour ñëpp surtout nag li nga xamante ne moom lay engendrer moom mooy ñu def ay économie d'échelle parce que gis nañu ne pour def ay data center yu ndaw ci ministère bu ne ay milliards lay coûter état bi c'est des dizaines voire des centaines de milliards ki sont dépensés pour non seulement defar data center yooyu mais surtout nag pour exploiter leen chaque jour parce que day soxla énergie day soxla climatisation day soxla ay nit ay ingénieurs yi nga xamante ne ñoom ñooy doxal tous les jours système bi donc loolu tey yëpp dinañ ko éviter grâce à la mise en place de ce data center là te ñu ngi ñaax suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo ne ci administration bi yëpp ñu def vraiment un plan bi tax ñu def migration bi fii nga xamante ne moom mooy jam Diamniadio suñu mbëbët moom mooy fii ak au maximum deux mois ñu mën a livrer donc euh, data center bi comme ni ngeen ko gisee daanaka lépp yemb na équipement yi ñëw nañ donc installation bi rek moom moo des te gëm naa ne donc fi ak deux mois lépp dina pare. jam ñaajo jaar ca ay AIBD cëppeelu foofe ca aéroport bu Saint-Louis foofe niki tey jii la ñu xaatim joxe kayit ya nga xamante ne war nañu defaraat lépp lu jëm ci wàllu aéroport ba fa moo ngi amoon ci teewaayu secrétaire général jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub tourisme ak transport aérien di Mathiako Bessane loolee nag jàpp na ne loolu dina tax rek ñu gën a ñoŋal la nga xamante ne moom mooy aéroport yu nekk foofee ca diwaan yi bu ko defee ñu gën a gimmil lépp lu jëm ci wàllub koom niki tey jii lañ ko doon amal ànd ci ak kii di euh, ambassadeur bu république bu réewum Tchèque kii di Mathiako Bessane ñu teewlu ko ak dama ñëw pour euh, euh, signer li ñuy wax procès verbal bi nga xam ne mooy joxe surtout aéroport bi société bi nga xam ne moo ko war a tabax. aéroport bi nag tabaxam dafa nekk ci programme bu son excellence monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. mu tànn ci cinq yoo xam ne dañ ko dénk chèques yi mu tànnaat ci huit yoo xam ne ak ay bailleurs de fonds yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal autour du du pays yoo xam ne tamit dañ ko war a réhabiliter. Saint-Louis nag moom euh, comme signé nañ tey procès verbal bi joxe site bi société bi nga xam ne day commencé fii ak 18 mois dootu leen xamee ci Saint-Louis donc bâtiment yi muy bâtiment bi ñu wax euh, aérogare bi ngeen di gis nii sama kanam bâtiment tour de contrôle bi ngi nekk sama ginnaaw bi nga xam ne tamit fa la contrôle di nekk di contrôler avion yi fii ñëw bâtiment yi nga xam ne fa la sapeur pompier yi nekk wala fi nga xam ne carburant bi fa lañ koy denc piste bi ngeen gis nii tamit dinañ ko yokk dinañ ko yaatal euh, voie de circulation yi tamit yi ngeen gis dinañ koy yokk tamit dinañ ko yaatal parking bi tamit dinañ ko gën a dëgëral euh, Saint-Louis euh, bu paree dinañ mën a accueillir avion yu gën a mag avion yi nga xam ne su ma jëlee exemple fret bi par exemple yi nga xam ne ñu ngi koy béyee wala di ko di ko di ko amee ci Louga wala région yi nekk juste à côté fii yëpp mën nañ déparé à partir de Saint-Louis soxlatul ñu dem ba Ndakaaru pour mën a yóbbu fret aérien euh, boo ci boolee tamit euh, gisement yi nga xam ne trouvé nañ ko fii à côté nga xam ne bés bu ñu ko réexploité nit ñi fi la ñuy déparé donc fi tam plateforme lay nekk di ñaan tamit population yi ak travailleurs ñëpp ànd ci dégg nga leen ñoom ñëpp wax nañu population yi wax nañu euh, travailleurs tamit wax nañu travailleurs yi seen euh, formation parce que boo defee équipement yu bees tamit dangay ngay bëgg def formation doog ñoom dégg nga leen population yi tamit ñoom ñoo dëkk fii seen liggéey la ñuy wax newoon nañ projet bi tamit boo buñ koy tabax ak buñ koy exploité ñu privilégié liggéeykat yi nekk ci région bi. ginnaaw ndar dem foofe ba ca tuuba taxawaay gi ñu am ngir daal di xeex lépp lu jëm ci wàllu sibiru si. programme boobee daal di nañ ko door niki tey jii mbëbët la nag mooy fexe daal di aar gune yi ak it ñi nga xamante ne gis nañ ne foofee la yëf yi gën a wulee ñaay rawatina foofee nag ñu jàpp ne am na ay jafe-jafe lu jëm ci wàllu assainissement ca dëkk bu sell ba Touba Tuuti Sey ci jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñu gën a nemmeeku ci biir Touba muy wàll assainissement ay at a ngi nii askan bi ay jafe-jafe yu tar la ñuy dëkkee benn taw dong su wàccee ci dëkk bi foo romb ay ndox yuy taa ngay fekk loolu nag li ciy topp moom mooy ay yooyoo xam ni dafay bëri lool ci dëkk bi mu mel ni kon ci Touba condition yëpp daje nañ ngir li nga xam ni moom mooy jàngoroy siburu law fii ngir nag xale yi nga xam ni ñoom ñoo am ñett jàpp téeméeri weer ak ñaar fukk ñu sàmm leen ci feebar boobu programme bi nga xam ni door nañ ko lu tolloog ñetti fan ñu war leen a jox ay garab ngir aar leen ci jàngoroy sibro docteur Ndeye Maguette Diop mooy médecin chef district sanitaire bu Touba. léegi ñu ngi ci terrain bi wax fa dëgg yàlla personnel bi ñëpp engagé wu nañ ngir xeex sibiru dimbali xale yi nga xam ne sibiru mën na leen lor ñu fekk leen seeni kër jox leen ay doom dimbali leen ba ñu mucc ci sibiru bi euh, ba nawet bi paase donc euh, am na juste quelques point yoo xam ne rek noté nañ ko mooy ay nit yoo xam ne xam naa dañoo xamul rek dañoo xamul wala ñu dégg lu leen lu yàq seen xel waaye ñu leen di leeral ne euh, sant nañ yàlla bi nga xamee ne sëñ Muntaxa ci boppam moom mii boroom dëkk bi ñaanal nañu nangul nu ko te boole ñu it ak ñoo xam ne dimbali ñu ba ñu mën a wër ñu bari waxtaan seek ñoom ak sëriñ lu mel ni sëriñu daara yeeg raabi tàkk muy préfet depuis le début du processus mu ñu si jàppale les collectivités locale dugal nañ ci seen loxo jàppale ñu. kilifa yi nekk ci wàllu wér-gu-yaram nag ñoom nee na ñu seen xel tàmbali na di dal ci campagne bi waaye teewul gën nañoo ñaax askan bi ngir it ñu gën cee jàpp ngir li nga xam ne moom lañ ci séentu ñu mën koo am tuuti say mbàkkee su defem le contradictoire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 gan gu njëkk gi contradictoire bokk na ci kii di Mouhamadou Moustapha Diagne nekk directeur de la formation bu ministère de l' éducation nationale ñu tam am taxaw seetlu xayma benn weer ginnaaw bi nga xamante ne dooraat nañ njàng beeg njàngale bi ñu ànd ceeg moom ak Babacar Samb. Mouhamadou Moustapha Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yow yaay euh, jiite wàllum communication ak itam formation di porte parole itam jëwriñ ju ñu dénk wàllum éducation nationale jàngameex jàngale mi gannaaw benn weer ba ñu tàmbaliwaatee jàngameex jàngale mi ci classe d'examen yi ban évaluation ngeen di def ci reprise bi. waaw di sant yàlla bu baax di gërëm aussi parents d'élèves yi ak élèves yi li nga xamante ni nangu nañoo wuyu woote bi président wax ni nañu reprendre cours yi. te loolu mu dénkoon ko ministre Mamadou Talla mu doxal ko doxal ndax ñëpp nañu premier jour ba rek ba amee téeméeri élèves yu jël ak ñett ñëw nañu euh, téeméeri enseignants yooyu jël fukki ñëw nañu kon muy enseignants yi muy élèves yi bu dañu massivement ñu leen ciy gërëm di leen sant tey vraiment à part peut-être euh, yi nga xam ne leen jéggal ndax euh, feebar bi. Euh, dañoo am yeneen feebar wala boog euh, élèves yi yoo xam ne nekk dans dans même cas mais élèves yëpp ak jàngalekat yëpp ñu ngi ci classe yi di subir cours yi ñëpp aussi mën nañoo euh, nangul ministère bi nii dañu digge woon ci protocole sanitaire bi def nañ ko ndax boo demee ci école yi yoo xam ne ñu xale yi masque yi thermoflash yi yaa ngi fi donc ñu ngi respecté distance yi ci classe yi évidemment c' est un peu plus ci cours d'école yi waaye jàngalekat yi ñu ngi fexe ba xale yi bàyyi bëri bi bàyyi bàyyi tegante bi ci ci école donc grosso modo sant bu baax euh, donc yàlla dimbali nañu ba malgré coow yi yëpp xale yi reprendre nañu xale yi nga xam ne ñu nekk ñooy def examen du CM2 ak terminal reprendre nañu cours yi euh, te incha allah ñu yàlla dimbali si examen yooyu fan ngeen toll ci wàllum organisation bi. waaw déjà am na examen yoo xam sax entamé nañ ko. li ci des nag pression examen ak jàngalekat yooyu jamono ji euh, luy lëmb seen xel moo di niveau élèves yi niveau ndongo yi te loolu mën naa am conséquence ci examen yi léegi ñii jàng ci télévision yi ñii jàng ci internet bi am na aussi ñoo xamante ne bii comme amuñu télévision am nañu amuñu internet ministère bi jël na ay disposition am pour yi ñu koy photocopier di leen ko di leen ko jox kon loolu dafay wane ni waa ah, ministère bi toog rek di xoole et que fekkante ni wàllu contenu rek la xale yi moom am nañ contenu yi euh, te apprendre à la maison ndax xamante ne bii je pense que am na lu ñu fa jël te euh, Euh, bu ñu reprendre euh, am na ay compétences yoo xam ne visé nañ ko moo tax ñu allégé programme bi compétences yooyu incha allah balaa euh, examen yi ñëw xale dañ ko am te it examen yi dina bàyyi xel ni ah ren moom feebar bi dafa dugg ci école bi donc ba tax mu suspendre cours yi donc bu ñuy examen dañuy jël en considération donc contenu yi nga xamante ne moom la ñu jàngale ci ci l'école jëm si modalité de passage yi pour classe intermédiaire yi fan ngeen ci tollu est-ce que li ni mel tamit du am ay jafe-jafe ci doxalin wi waaw xam nga comme feebar bi dafay nekk moom il faut nga ñëpp jàpp ni feebar bi dafay nekk il faut bi feebar bi ñëwee dispositif pour continuer cours yi examen yi aussi euh, noonu lay demee ñi nga classe intermédiaire ñi nekk CP ak CE2 ku ci am quatre virgule cinq sur dix comme moyenne bi nga jàll ñi nag CI c ak CM1 euh, dañuy jàll parce que dafa am arrêté buy tere euh, xale yooyu ñi nekk aussi moyen secondaire euh, cinquième quatrième ak troisième ku ci am neuf sur dix da ngay da ngay da jàll seconde première te ku ci redoublé woon aussi dañ la permettre nga doublé waat maintenant nag amul benn élève boo xamante ni bii dañ ko dàq loolu moom ministère bi jël na ci ay disposition parce que euh, loolu am na loo xamante ni bii du seen coobare euh, yàlla moo ko moo ko dogal donc amul benn élève boo xamante ni bii bu demee ne ko dàq léegi nag classe intermédiaire yooyu bu ñu demee euh, bu ñu ubbee école novembre bala ñoo tàmbali waat classe bu bees bi dañuy def li ñuy wax rattrapage maanaam mois de novembre bi yëpp dañuy jàngaat dañuy mottali euh, cours yi ñu jël woon daaw ndax euh, physiquement ndax ndax feebar bi su ko defee def rattrapage su ko defee ñu doog dugg nag ci at mu bees bi comme ça ñu relever tout seen niveau wala ñu dem ci classe supérieure. Mamadou Moustapha Diagne maa ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf Babacar. di fàttali yow yaay directeur de la communication de la formation di porte-parole itam jëriñ ji ñu dénk wàllum éducation nationale merci beaucoup. Saourou seen maa ngi lay nuyu. yow yaay secrétaire général euh, bu SAEMS di syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire membre itam ci G7. nit benn weer gannaaw ba nga xamante ni ndongo yi nekk ci classe d'examen daal dinañuy tàmbaliwaat seen jàng meex jàngale mi ban xayma ngeen ci dal di euh, amal. waaw. Euh, wax ni rek reprise bi biñ ko amee depuis le vingt cinq du mois de juin Euh, wax dëgg li ñu gis sur le terrain ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax en tant que acteur de l'éducation euh, man personnellement le jour de la reprise le vingt cinq man def naa tournée région Thiès dem ci localité yi village yi ñëwaat ci commune bi euh, disposition yi ma gisoon ñu jël ko nekkoon na disposition yu baax et puis ma fàttali tamit tam ñun syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire suñu responsable ñu ngi fépp sur le territoire national te liñ ma leen waxoon rek mooy que fépp foo leen gis manquement ci protocole sanitaire bi surtout na ngeen que relever wax ñu ko ñun ñu wax ci alors depuis lors nag pour dire vrai amul benn responsable bu ma woonee ma am na ñu tel problème xam naa nag dans les régions sud du pays muy Casamance surtout taw bi xëj na am na yenn yu mu gàllankoor ci cours yi mais à part loolu wax dëgg gisuñu benn situation bu particulière boo xam ne euh, suñu camarades yi dañ ko relever. donc jàpp nañ ni protocole sanitaire bi respecté nañ ko ci bu baax a baax ci école yi. waaw pour la moment de ba fi ma toll nii di wax amuma benn responsable bu ma woonee ma fii nii am nañu problème mu gel wala problème mu masque. maintenant il va sans dire comme niñ ko waxee woon avec la réunion du ministre de l'éducation na vigilance bi nekk de rigueur et de vigueur jusqu'à la fin du processus. loolu la ñuy souhaité te nous allons veiller à ça. voilà lu jëm nag ci niveau ndongo yi ban xeema ngeen ci amal gannaaw benn weer. waaw xam nga euh, niveau ndongo yi déjà bien avant que Covid 19 di fi installé wu ñëpp xam nañ ni ñu ngi commencé woon di wax ci niveau élèves yi loolu c'était une tendance déjà bi nga xam ne constaté woon nañ ko alors bu ci mbas mi dollee ko nag xale yi toog cinq mois mais jànguñu. il va sans dire que loolu moom niveau bi dafay gën a wàcc loolu moom euh, ñëpp war nañ koo xam et c'est ça la vérité aussi maintenant def di situation boo xam ne situation mondiale la situation exceptionnelle la à partir de ce moment comportement exceptionnel rek lañ ci mën a am année scolaire bi dama koy wax waxaat ko euh, da dañuy jéem foraatu rek liñ ciy man a for ñu jël ko du année boo xam ne Euh, dañ ciy am ay résultats yi nga soxla woon comme ni nga ko soxla woon loolu moom c'est valable pour le Sénégal c'est valable pour tous les pays à partir de ce moment ñun en tant que acteur de l'éducation ñu ci ciy béy suñu waar te c'est l'occasion de le dire à haute et intelligible voix jàngalekat yi vraiment la ngalaama jox nañ ci liñ ci war a dox def nañ ci li ñu war a def même période bi nga xam ne classe d'examen yi reprendre guñ woon xam naa ay professeurs yu bëri yoo xam ne ñu ngi nekkoon maintenir le contact ak seeni élèves via les réseaux sociaux via le WhatsApp donc loolu yëpp c'est pour que seen résultat yi baax mais encore une fois de plus ragal naa ni quand résultat yi nga xam ne dinañ ko am day nekk

88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 lu ñuy waxtaanee bokk na ci wàccaayu tabaske bi njëg yeeg yëpp ci biir la ak it mbas mi akay ay loraangeem njeexital yu mu andi ci réew mi ban jàngat ngeen ci am ak yit lu ci saafara ci 88 lay doon 628 98 98. asalaamaaleykum allo allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Birama Ndiaye. sant bu baax kooku. xam naa fan yi moom yaakaar naa ne eh, affaire tabaski moom bëgg ñu ko lool. seen seen weer bee teru rek. ndegem weer bee teru dañu ko jël waaye yal nañu ci àgg ci jàmm rek. waaw weeru njóobeen bi alhamdulilah yal ko jeexal alhamdulilah rabbil mhm. rek yal na ko yàlla may. Mhm. képp ku koy defati la nga ci sàkk yàlla na ko suñu borom tabaraka wa taala defal ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax baax di nuyu sa technicien di nuyu mbooreem groupe wax sa xalaat ñi nga xam ne ñooy woote ci rajo bi ñëpp rek ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen baal àq ci weer wi nga xam ne moom lañ nekk muy weeru tëbal hmm. di wax ne mooy maanaam affaire feebar bi moom na ci Sénégal yëpp nañ ci jël loo xam ne ay matukaay yu ndax dégg ngeen li ñuy xew lay xew bitim réew bu fekkente ne biir Sénégal dong la xew ñu maanaam Sénégal la xew waaye la xew bitim réew yéen a koy dégg rajo lu bitim réew ñëpp yéen a ngi koy gis kon nag lu mel noonu boo amee ci bitim réew ñu Sénégal nag ñun ñi nag di ko laam-laam ñi naan am nag ñi naan amul kon tey jii nañ jël seen matukaay état bi dañu jël ay matukaay maanaam masque yi nga xam ne moom la ñu ordonné nañ gën a góorgóorlu di ko def raxasu bii nga xam ne moom lañ moom la ñu wax ne nañu gën a góorgóorlu di ko def ndax tey jii fenn kenn gu ne wala njaay daw ca ba ngay amee tànk hmm. ndegam nit ki ji feebar ki lay jàppale premier ministre de santé bi bés bu ne mu wax bés bu ne mu wax yéen ñi nga xam ne yéen ay journaliste yi bés bu ne ngeen wax ci bés bu ne leen nit ñi pour maanaam ñu wax xam ne lii feebar bi ñu ngi ci biir réew mi ci ci réew mi ngi ci biir mi nag ñuy dund ak moom nan ko moytu feebar loo xam ne ni baaxul ci yow da nga moo gën ci noonu ñëpp ñun ñëpp noonu gën kenn ko ne nga def ci loo mën waaye jur tabaski jur nga dégg maanaam nga jël ay xara yoo xam ne nii maanaam kenn xam nu mu day wala ngay garante ay ndëbinoog ay xuma ay koddaay ak yeneen ak ci fi jamono neexul yu bare bare bare fi ñu mën nañ koo euh, muñ nga def loo man ba tëddee nelaw wax loo man def loo man ba tëddee nelaw ñu ngi leen ñu ngi leen siyaar bu baax a baax di leen jaajëfalaat jëfal ministre de bi daal ñu ngi koy jaajëfal na gën a sensibiliser nit ñi la jërëjëf jërëjëf Cheikh Diop ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. mënatuma noppi di salaamaaleykum. ah séeréer jaamu tukuloo. Mhm. maa ngi lay ziar. delloo ziar. naka kii bi mbaa am nga tabaski. Mm, yaakaar naa ko. ah Baye Baye bi yoon daal def na mbir. Mm. Baye Omar. Mm. waaw noonu la dégg naa booy ja wax ko démb. Mhm. parce que loolu it dafa am solo ci ay liggéeykat. ñuy ñaan ñi nga xamante ne ñooy liggéeyloo nit ñi nañu taxaw ci seeni mbir hmm. suñu bëggee seen liggéey jaar yoon ndax liggéeykat bu kanamam ñagasee rek liggéey ba mën na bañ a jaar yoon yeneen bi dafa ne woon aati al ajiru ajruhu qabla an yajifa ruquhu li am solo rek mooy gis nañu euh, covid bi moom mu ngi wéy wéyam wala sibiru bi sibiru bi mu ngi wéy wéyam ñun ñaa ngi def ci seeni mbir li leen doon wax démb ak barki démb sibiru bi waru leen waru leen conditionné yéen yéen a war a conditionné dund gi ndax yéen la ko yàlla dénk inna jaal ko xalifatan fil ard waaye nag li ci des mooy faxkum bayna naas bil xaqi wala tusdik loolu moo manqué ci réew réew moo xamante ni justice amu fi njub amu fi li Ousmane leen waxoon yàlla na ko yàlla yërëm ndekee njub laago la fi njub bu nekkee laago ci réew réew moom xawma fu ñu jëm képp koo gis mu jox mu ngi wax ngir poosam xam ngeen ñëwoon démb ak barki démb xam ngeen ñi ci tey ba tey ku wax rek xam ngeen dinañ jël nag ay mbubb di ñawal ay nit waaye nit ku nekk balil insaan ala ba basiratun walla walqaa maazira nit moo gën a xam boppam boo weetee rek xam sa bopp donc nanu góorlu tabaski baa ngi ñëw waaye kenn ku ci ne defal li nga mën waaye it ñi tane nanu dimbali ñun tane yàlla na nu yàlla yërëm wassalaamu alaa mani tabal hudaa jërëjëf Jibi Sow ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. honorable député la de vice président de la république président directeur général bu Sud FM. Mhm. moo. <laughs> Birama na def. sant bu baax alhamdulilah. ñu ngi lay nuyu di leen nuyu waa région de Louga waa comité rural bu Thiamène may mu a ak waa Kopp. Mhm, ñoo ngi leen di. ñaan nag réew mi suñu borom mi yore jàmm te dara la ko déewul yàlla dolli ñu jàmm parte sark ci réew mi. Mhm. Birama ñu ngi jëm tabaski boo xam ne de coono rek la Mm. am na si ñoo xam ne yaa ngi dégg léegi jafe-jafe yi ak tamit également ñu ngi xam ne dañu perte seen seen emploi maanaam plus de cinq mille huit cent yoo xam ne nii yëpp biñ ko calculé ñàkk nañ seen liggéey kon ñooñu ñu ngi leen di masaw di wax coono bi président daal moo war a jóg parce que moom li ma wax démb foofu rek. réew maa ngi solo trop mu bàyyi fi di lijjanti ci réew yi jaamur yi te ñun ñu ngi on a de beaucoup de problèmes comment ça de cinq mille ci cinq mille huit cent que presque six mille personnes muy juróom-benni junni nit yoo xam ne presque ñàkk nañ seen emploi moom ngay dox bitim réew di doxi loo xam ni vraiment boo xul woon Sénégal yi ne bu ngeen ma falee nii laay doxee duñ ko fal parce que dañ fee bàyyi fukki candidat ak ñett teg ko si bopp réew mi président moo war a xool cas social yi nit ñi ni coono bi ñu dund ak jafe-jafe yi nii mais vraiment stratégie bi muy def nii baaxul ci noonu baaxul yaa ngi gis tali Louga Linguère bële maa ngi koy jàmbar booba léegi ba bërki démb taw bi dafa dagg tali bi ba nit ñi amuñu fu ñu jaar fi mu toll waa Thiamène ak waa Koke dañoo stagné amuñu fu ñu dem mënuñoo dem mënuñoo dégg parce que tali bi dafa dagg ana ministre transport bi ana ministre bi yore transport bi non vraiment je suis vraiment désolé man daal man daal jaaxle naa léegi ci réew mi daal fal daal ni mu yombee mais fol li la Macky Sall dafa mel ni ñii da leen ragal pour wàcce ah bu ministre yi liggéey lu wàccee gouvernement bi wax naa ko semaine passée ne ko daana gouvernement bi waru euh, kii bi tabaski waru leen fee fekk na leen daanee jëlee leen fi mais ay ñoo gañe doo ensemble teg na gouverneur gouverneur ensemble rek bu fekkee ne nii lii mooy émergence émergence fu mu mën a jóge maa ngi ñaan Sénégal yi ñu delloo ko fa ah ñun de émergence bi sonal nañu su la ñu wax jërëjëf Mor Niang Mbacke bari ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 wàjjaayu tabaski bi mbas mi ak euh, la ca Rousset euh, asalaamaaleykum. waaleykum salaam. aha sëñ bi. Alaaji Xaas Mbaye Mbacke Bool. aha Alaaji Xaas waaw. sëñ Birama maa ngi lay ziar. delloo ziar xam nga mbas mi moom jàpp naa ne moom li ma ci daan wax laa ciy waxaat moom damaa jàpp ne àddina sépp la lëmbi àddina sépp la taxawal mm-hmm. parce que tey tey boo xoolee réew yëppoon doole Sénégal muy Amérique muy Espagne muy Italie bëri na ci ñoo xam ne tey ñu ngi fa am ay frères ñu doon def été xam nañ jafe-jafe yi fi mu toll ndax tey jii boo xoolee euh, faatu ji wàññeeku na waaye fi ne mi ngi def sept pour cent ci tey boo demee Italie wala nga dem France wala nga dem Espagne Amérique moom dafa lëmbi tey ji emploi yooyu ñëw noonu àdduna si parce que tey fabrique yi daan liggéey mooy usines yi daan liggéey wala restaurant yi daan liggéey wala euh, hôtel yi daan liggéey suñ ubbikuwul faaw nit ñi nekk ci ay jafe-jafe te fii bëri na ci ñoo xam ne lu ci bëri dañ koy importe maanaam muy muy lii marchandise yi Chine lay jóge yi yi Italie yi France kon marchandise bu ñëw rek usines yu bëri ak barabu liggéeyukaay yu bëri du dox rawatina secteur privé yi mais président moom pandémie bi mu amee ba léegi li ci def ci ndimbal ak li ci def ci ay forage ak li mu ci def ci ci ci ci ay télé ay jàppale ah jàpp naa ne moom jàmbaar dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg président moom la daanu nag moo dëgg suuf waaye li ma xam ma xam ko mooy la mag ñi daan wax ku yuddi të doo mën a wàcc nit ñi ñoo war a delluwaat seen xel ci jaamu yàlla ak nangoo liggéey ma dar dama ne bu darul kenn dar boppam mais munoo yor sa làmmiñ wala nga yor sa di yaax yaaxi bëgg a yor la sa kër yor la sa njaboot yor la sa kii bu jafe-jafe di kër rek faaw metti ci yow góor dafa war a tàmm yaxantu di liggéey di denc waaye góor gu nangu te liggéey faaw bu jafe-jafe amee faaw mu sonn góor ñi nañ delluwaat ci tool yi nangoo liggéey tool yi waxuma ñuy bay def ay gerte ki dugub ki nit ki sëpp fu ñu xëy di liggéey rek ay toolam la yaa xam loo mën a liggéey nag mais loolu laa tudd ay tool nit ñi faaw ñu jàngal seen doom yi métier nangoo liggéey bàyyi kat nang kat nanga lambar lambar ji loolu mënut a ànd ak réew mu dox am réew pour mu dox faaw ndaw ñu nangoo liggéey jigéen ñu nangoo sëy jërëjëf alaaji Xaasa Mbay ñu jël keneen ci liñ bi asalaamaaleykum maaleykum salaam sant bu baax alhamdulilah man daal dama ne gis nga problème mbas mi ñuy wax waaw dama la waxoon ci départ wax dama ne kañ la diw ne na lu am la mais dama ne lu ñu créé rek sànni ko ci askan bi loolu moom loolu ku gëm yaa ku gëmul yaa xam mais li tôt ou tard bis hmm. li ma la wax teg loxo kenn du ko mën a teg lu am la lu nekk la mais dama ne lu ñu créé la xëpp ko nit ñi bon hmm. maintenant mu des problème mu Macky Sall ak yéen yéen am si réew mi gis nga Ndakaaru hmm. Sénégal du Dakar dama ne il faut que génn Dakar pour xool Macky Sall li muy réalisé ñun ndoxu ñu pour Macky Sall dañu yaakaar ci moom ñaari dërëm mais dama ne boo gisee nen da ngaa ne ne gis nga yoon bi nekk di ko rétablir fii ba ba ngay dem Lac Rose. 77 ba léegi yoon wi kenn mësu koo defar. tey jii fii bi di ko ba ba nga laal sa basan jàmmal na fi ne man socialiste la mais jamono jamono socialiste ba ci Ablaye Wade ba ci ku mu di doon ñoom ñëpp kenn mënu koo defar ñu ngi koy defar nii hmm. defar bi ku nekk sa bopp mën nga maa témoin ci li may wax kon nag Macky Sall man dama dama jàpp na yéen a jotee ci a dem ba wax waxte dina wax a wax a liggéey gis gis nga boo ñëwee tey ci problème dem naa ji ay liggéey mais dama ne gis naa fay bâtiment yoo xam ne ay ay immeuble air plus 10 dañ ko gis léegi ci kaname su dina na nga dem xool li ma la wax te loolu ci réalisation Macky Sall la bu jógee ku bu ko àggalee sax bu ko àggalee ku ñëw àggale ko mais buñ nekkaan defu fi dara du ko ne fële génn na fële Mali Gueye di tàkk nale imaam moo ko taal imaam mu jàkk moo taal Mali Gueye kon loolu moom nañ teg affaire yu yenn yi ci suuf imaam yeeg Dóor Ndiaye keneen keneen seytaane moom seytaan dong lay doon Mali Gueye tàkk te imaam moo ko taal chef de l'État nga dem di négocier kenn mënu ci dara kenn kenn moom jërë ngeen jëf jërëjëf El Hadj Gora Ndiaye ca Sébi Kotaan ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 salaamaaleykum. waaw El Hadj Birame. aha. Adama Dieng la maa ngi lay ziar. delloo ziar Dieng. na ngay dégg baax alhamdulilah. ñu ngi bu baax a ziar. Mhm. ñaan jàmm ji mi rek. di ko réew mi di ñaan sunu kàddu fekk ñëpp jàmm. ñu mhm. ngi koy delloo vraiment mbas mi de ni muy développé ci réew mi vraiment ñu ñaan yàlla mu gën a dellu ginnaaw bu baax a baax nag. Hmm. Euh, te ñuy euh, gën a respecté mesure barrière yi ndax ndax jàpp naa ne loolu rek moo ko fi mën a jëlee docteur yi wax nañ ko guddi wax nañ ko bëccëg. Hmm. kon daal euh, comme dañuy jub nag événement boo xam xamante ne ñu bari bari dañ ci essentiel te ñuy jóge fii di dem fee loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax respecté mesure barrière yi di raxasu di takk masque yi ci côté bu nekk. respecté tam distance bi nga xamante ni docteur yi ñu ngi koy digle ndax jàpp na ni feebar moom euh, docteur li ñu wax yi leer bu fi yàggee ñun la bu fi gaawee jógee ñun la kon yaakaar naa ni mag ngi interpellé sama mbokk ak Kajoor yëpp penc mu nekk daal ñu teg fa ay paane raxasu ñu gën a góor góorlu bu baax a baax te wàññi yenn déplacement yi nga xamante ni mënul ñàkk daal ndax loolu moo ko fi mën a jël tout concernant président nag ak li mu def ci mbas mi vraiment jàpp na ni def na effort yu am solo ndax gëm na nit ci àddina bi bokk na ci président yi nga xamante ñoo gën a taxaw askanam ak jàpp naa dund bii rek nekk na loo xamante ni lu am am solo la te fi mu ñëwee jàpp naa ne lu. Mhm. jërëjëf kii di Adama Dieng foofee ca Touba ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33. fay ki la jox nga lekk bëggul nga dee jàpp naa dootuma bàyyi salaamaaleykum maaleykum salaam Mr Birima aha Diop na def sant bu baax Diop di la nuyu di nuyu waa groupe bi ñëpp ngi lay fay bon Mr Birima waaw Diop. coronavirus daal di tax muy propagé wu ci Sénégal. Hmm. suñu autorité yi rek la. autorité politique yi vraiment ñi yore réew mi ñoo sérieux wul hmm. parce que business bi ñu ci dugal ak politique politicienne bi moo tax affaire bi propagé wu ba nit ñi gëmatuñu. léegi Sénégal léegi maintenant fii parti des pays yi nga xam ne ñoo gën a propagé wu la ci Afrique ak ci zone UMOA avec zone euh, CEDEAO donc état da ngay sérieux mesures yi ñu yoroon waroon yi ñu jëloon jël ci début ba nit ñëpp a taxaw respecté ko toog seeni i kër bu fekkoon état def na la mu waroon a def fekk leen fi jox leen leen war a jox ñu toog pendant quelque temps ñu def benn euh, confinement partiel kon du propagé wu mais ñu ngi ciy dugal affaire yi politique ak njuuj njaaj business di joxe ay marché yoo xam ne ñi ko ñi ko jox yelloowuñ ko ah di di di récupérer ay ay ay transhumants xam nga loolu moo tax nit ñi dem ba gëmatuñ ko mais au de nit ñi respecté nañu mesures yi mais c'est l'État qui a failli mission léegi nag ñu ngi ci def ay business waxatuma la dara mais ñun suñu mbokk yi nga xam ne dañoo vacancé woon càng fa ñu leen di laaj quarante mille francs yoo xam ne ay test teguñu ko fenn amul benn pays bu ko laaj ndax fii képp ku ñëw da kenn du la laaj ay affaire ay test donc business bi ñu ci lañ ci dugal di jéem a utal français yi ay ay ay marché pour ñu leen di leen neexale loolu moo sérieux wul au lieu ñu dimbali seen askan xam ne ñoo ñu doon voyagé ay ay ay impacté lañu ñu leen di forcer di leen jéem a imposer ay euh, test quarante mille francs mais c'est pas sérieux du tout donc ñun problème bi bu propagé c'est notre état qui a failli à sa mission nañu bàyyi corruption bi ak njuut njaaj bi ak riba gi loolu moo téye Sénégal ngeen daal maa jërëjëf Diop bootee ca Italie ak waa biti réew yëpp ñoo ngi leen di jaajëfal ci biir réew mi 88 lay doon 628 98 98 ñu jël keneen wala ñeneen ci ligne bi wàccaayu tabaski bi njëg yeeg yëpp ci la ak mbas mi ci 88 lay doon 628 98 soxna yi fanaan ku ci bokk juuti ku sàggan a fay bi dante loolu dalu laay loolu dalu laay asalaamaaleykum. waaw Ndiaye. waaw kooku. Cheikh Bey maa ngi état bi. Cheikh waa Cheikh yaa mujj waxal ñu ci ginnaaw ne yaa mujj. Ah, waaw kon ah, ñu ci sama ñu topp ci sama gannaaw kon bu subaati. maa mujj voilà waaw. nu ngeen nu ngeen coono. sant alhamdulilah. di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen yàlla na ko yàlla boole. ñoo la koy delloo. Ah, mbas mi moom maanaam wax dëgg yàlla fi ko Sénégal teg maanaam réew yu bari dañ ko faa tegu. Hmm. ñoom ni ñu ko doxalee ak ni ñu ko war a doxalee bokkut. politique yi nga xam moom lañ cee rax ak sama auditeur bi génn léegi ni wax mhm. daanaka loolu loolu mooy dëgg waaw ay marché mbas ngeen ciy doxee marché di ko def ay opération di ko jox nit di ko def ay saare business ak yooyu loolu daa am loolu du yoon du yoon du yoon nit ki boo ko dee dimbali mën ko ko dimbalee sax te doo ko jëndal ceeb doo ko jëndal diw mu jot ci mu mu mu jot ci ndimbalam ah beneen bi ci topp yow koo xëy yow sama réew lijjanti ko wut loo demee ci réewum jàmbur di ko jéem a lijjanti man daal dëgg dëgg waaru laa def njaay baax na jërëjëf nekk leen ci jàmm. teew sam réew lijjanti ko woon nga daan da ngay dem mën di lijjanti mën a réew. ah yow yaakaar Sénégal yàq ko lañ def jaxase ko. yaakaaroo ne mënuñu foofu ñëw fii. ah ñoo di yàgg dëgg dëgg dëgg. léegi ay ay yéen ci bopp waaw waaw waaw dama ne dëgg dëgg loolu damaa waaru. de jëlee ba avion di yàqu gasoil di tardé ay ay ay temps. tempo di di dem mel ni da nga leen a a lijjanti yow sam réew mi nga nekk lijjanti ko nit ñaa ngi lekk ñu eh, jiwu amul dara amul lépp manqué loolu lijjantee réewum jàmbur mhm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ay du yem ci bopp borom xanaa rek ñu ñaan jàmm yàgg fii 88 la woon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 foofu ngeen jaar mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi ak wax sa xalaat ci kanam tuuti sud éducation wutuñu ci toog bi buñ ca noppee Marie Rosalie Ndiaye ñëw ak ci xibaar yi ci yaatal ci France lay doon gërëm bu baax Alassane Wade mi féetoon ci xarala.